ma ni au moment ou je vous parle ils sont en train d'attaquer la maison de Martin Sam loolu ngeen xam ko Cheikh. ils sont en train ils sont ils sont plus de mille personnes qui la recruté on <clears throat> alors il a une insécurité totale à la Médina man nag la ma waxoon bërki démb mi ngi bëgg am. depuis huit ans terrorisme la ñuy dundee biir Médina terrorisme verbal ak terrorisme physique ku wax ñu dóor la ku wax ñu saaga la ñëpp toog seen kër bàyyi leen ñu def lu leen neex ñun ay doomu Médina lañ na loolu day dakk dootul amati woo naa état à deux ou trois reprises nee naa leen na état jël ay responsabilités parce que li am mooy notre victoire est quasiment akiis xajamal ko moo ko des moo ko dese parce que pour la première fois man mosu leen ma dégg ma tudd turam tay woon naa di tudd turam j'accuse Bamba Fall de barbarie à la Médina et le mot n'est même pas trop fort boo leen seetloo premier jour daggate nañu kanamu Fatou Wade deuxième jour attaqué nañu Gibraltar troisième jour ñu am suñu beneen xarit boo xam ne attaqué nañu quatrième jour ñëw nañu si siège bi attaqué ñu tey gis ngeen fii li fi xew ñu ciblé ay kër au niveau de Djekko avec la complicité de certains attaqué ay kër des innocents gaañ fa ay nit lu ñaaw mi nga am biir Médina léegi nag l'affaire est très simple dootuma du ma tàyyi di woo état et le mettre face à ses responsabilités man du ma def lu safaanook loolu parce que je suis un responsable mais nag à partir d'aujourd'hui j'appelle tous les fils de la Médina et toutes les filles de la Médina à la résistance faw ñu jàkkaarloog ñi wan leen ni ñun ay doomu Médina lañu faw ñu jàmbaarloog ñi wan leen ñu Médina kenn moomu ko ñun ñoo ko moom ñun ñi fi dëkk. dès demain jàppel tous les jeunes tous les jeunes laa wax nañu tase ci siège bi et on va se parce que nag la may wax suba ba léegi légitime défense am na. te duñu ay yaafus wax naa ko deux fois dégluñu ma mais je pense qu'il est temps maintenant d'agir et on va agir incha allah